daa junjoo rek jéem a xam sëriñ bi te jéem ko dund jéem a xam sëriñ bi te jéem ko dund sëriñ bi mën na koo xam ci loolu nag am xaw xaw su wajhi laa suñ lépp njëmale ko yàlla xaw su wajhi laa nag mënut a am ci loolu dëddu adduna dëddu adduna buñ ko dee wax ñàkk lekk du ñàkk naan du ñàkk denc du ñàkk dëkk da du àdduna fam la mu ci gën a gàtt ma ngi da ngay jublu yàlla te dara àdduna du la saf bu loolu amee nga daal di nag eh, nekkal sëriñ bi yittewoo ko jéem xam aw doxinam mën noo sëriñ bi mën nu koo liggéey lu lu lu kawe am xas wa la te def ko muy suñu yitte di ko di ko jàng di jàng doxinam di ko jéem a xam di jàng doxinam loolu sëriñ bi moom raw nam xel waaye nag lu ma tax xamle xamle na ko wane na aw doxinam itam lan mën nañ caa xamee lañ ca lañ ca lañ ca àttan sëriñ bi boolewul ak dara boromam ak yonent bi boromam nag moo ko tànn bàyyi ko ci biir jaam ñi mu nekkal ci boroomam di woon jaam ñi niñ war a jaamoo suñ boroom tun kem kàttan loolu kon loolu moo fi moo ci bàyyi moo ci war a bàyyi sëriñ bi boolewul ak dara boromam ak yonent bi rek waaye borom ko tànnal nag bàyyi ko ci biir jaam ñi mu nekkal ci boromam wane ci nañu war a nekkale nañu war a jaamee suñu borom loolu nag dara da ci loon a jiitu xarsu wajhi la jublu jublu borom ñu jul jul ko suñ lépp wan gannaaw lu dul moom beddu àdduna te daal àdduna bañ noo saf mu nekk ci nag nekk ci ni mu gën a la sëriñ bi nekk ci ni mu li mu fi bàyyil kon lanu ci war a bàyyi rek moo di li mu fi bàyyi li bàyyil suñ lépp jëmale ko suñu waroom suñ lépp mu jëme ko nag ci sant sëriñ bi ak sax dàkk ci liggéeyal ko liggéey bi nag moo di nekkal ko ci lim lim lim bëgg moo di sax dàkk ci jaamu yàlla ci sunu sunant bi sax dàkk ci jaamu yàlla ci joxe suñ lépp daray adduna bañ noo saf loolu lim ñuy indil du do tal dara lu suñ borom ak àllaaxira ka nu jëm du suñ tal aduna du ñu taal suñ bop du suñ tal aduna waaye nak ni li tax suñ borom tan sëñ bi mu nekk ci biir jaam ñi nekkal ko ci jëwoon jaam ñi nañ ko war a jaamoo loolu moo nu ci bàyyi loolu rek moo nu ci bàyyi kon nu góorgóorlu ci loolu bu baax a baax nan góorgóorlu ci nan góor bu baax a baax ci nan mën a sant sëriñ bi ci nan ko mën nan ko mën a liggéeyee ci li mu fi bàyyil muy sax dàkk ci jaamu yàlla rek ci suñ lépp nag. na ko suñu borom diglee suñu kem kàttan na mu ko teree nu doo ko def suñu kem kàttan na suma borom bëgg du ko bëgg suñu kem kàttan lam bañ du ko bañ suñu kem kàttan sax dàkk ci loolu loolu moom rek lañ mën a liggéey la sëriñ bi mën ko mën a sant itam kon góor góorgóorlu bu baax a baax dara waru fi ne waru fee bàyyi loolu loolu nag ci kattan suñu borom ak xereñam du duñu yàqal dara lan war a am ci àdduna ci ci yiw duñu xañ dara lan war a am ci yiw te loolu rekk nag itam mooy tax nu mën a sant sëriñ bi mooy tax ni mën a sax ci liggéeyal ko kon nanu góorgóorlu bu baax a baax a baax sax dàkk ci li mu fi bàyyil man moom moo niy defar suñ lépp moo niy sàmm ci wàll yépp biir ak bitti adduna bari nay pakk lool waaye ku sax dakk bu nu saxee dakk ci li ñu fi sëriñ bàyyil dara dañ koy tënk ci mu sax dàkk ci wéetal yàlla sax dàkk ci dooloo sëriñ bi diggam ak diggam te nekk ci li mu buñ ko defee war waruñu tiit dara duñ jaaxle ci dara duñ ragal dara te dara mu du man ci woon ci noonu dara kon loolu mooy li ci am solo góor góor bu baax ci nekk li sëñ nekk ci nekk sëñ nekk ci li sëñ bi bëgg ci noonu nekk ci li mu nekk loo te wéetal wéetal suñu borom gën a we waxtu wu ne ci biir bitim ñu gën di wéetal suñu borom ci lépp di gën di doyloo sëriñ bi itam nag di gëm borom ci lépp loolu mooy li nga xam ne eh, buñ ci buñ ci góor luñ ci gën a góorgóorlu rek gën a yëg suñu bopp ci gën a moom suñu bopp ci tënki-tënki àdduna ak gàllankoori àdduna luñ luñ ci gën a nekk rek di gën a moom suñu bopp ci ci wàllu googu tënk-tënki àdduna ak gàllankoori àdduna te bari na lool waaye loolu rek moo ñu ci mën a musal kon bu nekkee ci loolu loolu te li muy indil mooy taxi àdduna ak taxi àllaaxira rek muccu àdduna muccu àllaaxira defaru àdduna defaru àllaaxira loolu rek la moo moo moo ci moo ci dikkal kon noo ngi sant ñëpp di balu ak ñëpp dénkaane nun ñëpp nu balonte ak bu xas wajhi laay amee jubbu yàlla bu amee dootoo tal dara loolu yàlla ak alaxira ku tëlul ku tëlul ku tëlul dara nag loolu yàlla ak alaxira sa lépp ak yiw la ndax du too xëccoo du xëccoo ci dara àdduna dootoo jëmee ci sama romb jaam jenn yéene ji ñaaw waxuma laa jafe ga loolu noonu rek la deme nan góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax a baax ci gën a sax dàkk ci wéetal yàlla gën a sax dàkk ci jaamu yàlla loolu mooy ci suñu lépp nag suñu ci yiw adduna suñu yiwu adduna ak si wu alax suñu yiwu alax lépp ngi ci loolu kon jërë ngeen jëf nanu góorgóorlu bu baax a baax a baax te gannaaw ban sante cant goo xam ne yëmul fenn ndax bu nu sunu borom booleeg sëriñ bi rek booba la sunu ajo mel na ni sunu aj booba la sunu ajo fajo ndax sëriñ bi doy nañu ci lépp doy nañu ci àdduna doy nañu ci àllaaxira nit dafa mënut a ñàkk nekk nekk ci dara kon nu nekk ci jaamu yàlla liggéeyale ko sëriñ bi ndax noonu la bëgg ci noonu bu ko defee rek suñ lépp yéwén jërë ngeen jëf ñoo ngi sant bu baax a baax a baax a baax ci taxawaay yéen weesu ñoo ngi sant bu baax a baax a baax a baax taxawaay mat na rafet na jub dans moi lépp faire ju ñu am rek moo mais ko may muy tawfeex sëriñ bi sëriñ bi tawfeexi boroomam la kon tawfeexam mu ni ci lepp lolou kon sante yalla rek war ak nak jima a ci lo xamne ko meuna sante kenn ko meuna la ñëpp taal si bu ñaan góorgóorlu bu baax ci muuri koor yi ndax yitte juree la ñu ànd koor gi kon nañ ci góorgóorlu bu baax a baax suñu kem kàttan